sant yàlla mi nga xam ne mooy aji gindee ji mooy dimbale bi mooy buur bi nga xam ne mooy aji settantal ji mbiri jaam ñëpp mooy aji yónni ji ay yónnenteem yàlla julli ak selmal nekk ci ñoom mu yónni leen ci mboole mu kàllaf noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne amul benn buur bu yeye ak jaamu jaamu gu mën a jural njariñ ki koy jaamu ñàkk gaa jaamu mën a juralal ku dul moom moom rekk la amul kenn ku bokk moom ak nguuram noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne sayiduna muhammad jaamam la ndawam la waaye mboolem ñi ràmm ay bàkkaar ëllëg mooy ka ci gën a màgg yàlla na julli ak sëlmal nekk ci moom moo fi ñëwam ak saxaabaam yi nga xam ne ay way teey lañ waaye ay way lab lañ mbokk yi xam naa danañu leen balu xaq bala ñuy tàmbali ndax ajuma ja ñu génn dañoo tàmbali woon ci di nafar li ñuy tudde xayaatu Cheikhul Xadim muy dund Cheikh Ahmadul Xadim waaye nag mu mel ni tey dafa am xew-xew bu gaa boo xam ne bëggoon nañ cee sànni kàddu laa diirante ak jullit ñi ci réew mi ñëpp ak ñi dëkk réew mi tamit ay jullit su ko defee kon ñu may ñu ko rek ba ba ne yoon incha allah ñu wéen li nga xam ne moom lañ tàmbali woon ci sëriñ bi ndax wax ci Cheikhul Xadim day mbir moo xam ne bu jeex waxtu bu nekk mënees na ko bu dee xew-xew yii di xew léeg-léeg nag ay mbir la yuy gaar jullit ñi di ci soxla ay leeral te bu jàllee day jàll su ko def ñu bëggoon cee laabirinte ak mbokk jullit yëpp ci niñ ko daa waxee rek ala inama diinu an nasiha yonent yàlla Muhammad nee na ne fan yi coow li bari na lool ci diggante ñaar ñi dëkkee réew mi muy jullit ñi ak ñi nga xam ne duñ ay jullit mu ñuy tuddee ay chrétien waa jàngu bi la sabab coow li mooy kàddu bu premier ministre yëkkati ci ab jataay boo xam ne ba ñu koy amal dañu fa dajale woon élèves yi nga xam ne ñoo dàq jàng ci réew mi ci at mile ñu doon leen sargal ci biir sargal boobee nag ci la yëkkatee ay kàddu wane ne bu dee ca France ñoom dañoo dugal ci seeni loi ne bépp élève bu jigéen buy jàng tey ab jullit sañoo kolu muuru ba di dugg ci seeni classe ñoom bopp neen rek nga mën a def dugg ci biir classe bi loolu seeni loi la waaye nag fii ci sunum réew moom waratuñoo nangu benn école bu nekk ci biir réew mi di tere xale yi jullit ñi ñu muuru dugg ci école yi jàng kaddu goge nak mu am kenn ci wa jangu bi ci kilifa ya ku ci yëkkati ak ay euh mu melni kaddu ya xawna xaw naa ñagas ndax bu fekkoon daf ko yemale ci tontu ka wax du am benn jafé jafé waye tontu ki wax ba noppi duutaale baram suñu diini ji di islam waaye duutaale baram it yonente muhammad sallallahu wa wasallam alayhi te yoonam niwut ci ciow la loolu mom lu mata leral li ñuy njëkke mooy ñun ñëpp li ñu war a maase xam mooy réew mi dañ ne dañ koo tëgg ci al ilmaniya muy république laïcisme réew mi ci laïcité la bu ñu nee laïcité mooy kenn ku ci nekk la nga gëm ñu warmaalal la ko sàmmal la ko nga sañ koo manifesté woo wane ko ci bépp bépp jamono loolu mooy laïcisme école bi ñuy jànge ni nga xamee ne chrétien bi sañ naa takk kurwaaram bi nga xam ne mooy màndargaal jàngu bi mu bokk noona la jullit bi sañe jullit bu jigéen bi sañe muure aw yaramam parce que l'islam moo ko ko sant alxuraan ko ko sant ba noppi dugg ci classe bu jàng loolu moom ñun ñëpp loolu la ñu war a maase xam li ñu war a gëm mooy amul benn école ci réew mi boo xam ne sañ-sañu ne jullit bu jigéen bi bu bëggee jàng na dindi ak murayam door a dugg ci sama école waye sama école mom suñu fee muur loolu ñun ñëpp dañ ko wara maasi xam lu fi am la woon nag loo xam man li ci sama jaaxle mooy lan moo tax suñ kilifa yi ñu daa jiite nangul leen ko maanaam nangul waa jàng bi ci seen école benn julit sañu fa dugg di muuru julit bu jigéen sañ ko dugg ci seen école di julit bu góor bi lenn luy diineem koo wane di dugg ci biir école bi waaye nag école sénégalaise bi moom chrétien bu mu mën a doon sañ ngaa takk sa croix bi mandargal fi nga bokk dugg ci biir école bi jàng te mbaa xam ngeen bépp professeur wala bépp maître buy jàngale waxtu woo xamee ne chrétien bi dugg na ci biir classe bi takk croix nga ne ko sa croix bi nga takk day mandargal sa diine waru koo dugal ci biir classe bi génnal ak moom lola bu siwe yow professeur bi ko def wala yow maître bi ko def dañ lay sanctionné dañ lay sanctionné ndax dañ nan la nit ki limu gëm kenn waru ko ci bundu xataal ginnaaw mom christianisme la gëm sañ naa takk kuroam ba noppi dugg ci classe bi jàng ñun suñu école sénégalaise bi loolu mo fi xaw de amul benn maître wala benn professeur bo xamné ndawal chrétien bi sañ na dugg ci classe bi nga génn ko parce que dafa tak kuroam boo ko defee yow yow professeur bi dañ lay sanctionné bu dee maître lay dañ koy sanctionné ni moy daam ci rew wa legi nak lutax ñun biñ nangul loolu ba nak ñom ñu nangul leen ne ñun suñu jigeen i jullit ñi sañ ñoo muru ci sene ko loolu ab laaj la lu tax sañuñ leen a tere seen i màndarga yi ñuy màndarga ci seen diina te ñun muray mi nga xamne l'islam moko sante jigeen jigéen jullit lan motax tax chrétien yi di tere ci seen biir école diko ko jigeen jigéen jullit lool nak mbir la bo xamne lu kilifa yi wara bok tok waxtane ko man li ma ciy proposer comme xalaat mooy ñi jiite enseignement bi ak éducation bi nañu woo ñi nga xam ne ñoo amee école yi féete ci wàllu jàngu bi ñu bokk ñoom toog waxtaan ak ñoom te ñu xam ne kat juge bi lu mat a waxtaan la lu mat a teg ci table la ndax bu ñu fekkee ne ci république lay laïcité lañ nekk ab jullit sañ naa muuru ba noppi école bu ko neex mu mën fa dem jàng ñi nga xam ne chrétien bi noonu la sañ a takki kuram ki bokk ci eh, beneen beneen diine yi sañ yor màndargaam dugg ci biir école bi jàng loolu kon ñun li ci proposé mooy na doon loo xam ne dañ koy waxtaan li nga xam ne nag moom lañ ci jokk mooy kàddu gi nga xam ne abbé bi wax na ko man de jàpp naa ne lu mu war a retiré la dafa wax ñaari baat ñun ay Isa mi nga xam ne dañ koo soppi ñun Isa mi daaj ray ko lañ gëm ndax saa moom dafa ñeme taxaw na nangu ñu rey ko waaye ñi gëmuñ ki nga xam ne moom da doon daw ay noonam euh, ñu ñëw ci bi njëkk bu dee Seydina Moussa mi nga xam ne dañuy faral di dégg jullit ñi di wax ne kenn rëyu ko ba ñu demee ba waa banu Israël yëkkati ko teg ko ca kaw bant ya taalal ay loxoom di ko daaj yàlla mo jël xar kenn ci njiit yooyee bëggoon a rey Isa jox ko xar kanamu Isa ba noppi rocci Isa ñu rey kilifa googee waaye du Isa lañ rey ñun loolu lañ jàng ci alxuraanul karim te moom lañ gëm te liñ jàng ci alxuraan ñun jullit ñi duñ ko yemaleeg nag kenn kuy wax ci aduna ndax alxuraan wax yàlla la wax yàlla nag des ko dendale waxuma ñu di ko yemale de waaye des ko dendale waxi nit te ñun alxuraan moo ñu moo nañu wax xawlihim inna qatalna al masiha isa bna mariama rasulullah nee na juif yi ak chrétien yi werante di wax na ñoom rey nañ masiix mi nga xam ne mooy isa bnu mariam di yonente bi yàlla ba suñ borom nee na wama qataluuhu nee na kenn reyu wama salabuhu kenn salabu ko ca bant ya walakin subbiha suñ borom nee na man maa jël genn kilifa ci ñu bëggoon a rey Isa ma jël xar kanamu Isa jox ko ñu daaj kilifa googee rey ko jàpp ne Isa lañ rey dafa fekk ne Isa rey mooy walakin subbiha lahum bi suñ borom waxee loolu ba noppi nag lim ci teg mooy la ko ëpp mooy la mooy lim ne wa inna allazina ixtalafu fiihi la fi bihi min ilmin ila itibaa zann waaye wa ma qataluuhu yaqiina suñ borom nen juif yi muy yahudi ak nasaraan yi nga xam ne ñi ngi werante ci Isa dañ ko rey wala rëyuñ ko ñoom ñëpp ci ay sikki sàkk lañ nekk dafay shakk min ndax maa lahum bihi min ilmin ñoom ñi ciy wax ñëpp suñ borom nee na amu ci xam-xam ila tibaadan dañuy topp njort rek waaye nag li wér te wóor maa ko xam man yàlla man mi nga xam ne maa dañ kumpa tey dogal mbir yi mooy wa maa qataluhu yaqinan bal rafaahu llahu ilayhi li wér te wóor moom mooy kenn rëyut Isa suñ borom nee na Isa man maa ko yëkkati indi ko ci sama wet wa kaana Allahu azizan hakima loola mooy li wét loola nag jàngu bi nangu ko am ñu ñàkk ko nangu ñun danañ ko jàngale ci suñ téere bi ala kulli xaal ndax alquran ñu ko jàngal ci sayyidina Muhammad lañ ko wàcce mu jàngal ñu ko ala kulli xaalin kenn mënuñoo gëmloo ne sayduna isa dañ koo rey sayduna isa reyuñ ko alquran la waxi yàlla la suñ borom nee na reyuñ ko wa ma xataluuhu wa ma salabuuhu walakin subbiha lahum ci ay kilifa ci ñoom lañ nuróoleeg isa ñu rey kooki waaye reyuñu isa jeex na loolu nag kenn mënuñu ko te gëm amma ndax sayduna muhammad ragal ko tax a jóge madinatu munawara subhanallah sayduna muhammad bi muy jóge makka di dem madinatu munawwara ci ndigalal yàlla la fa jógee waaye jógee fa ci coobare boppam waaye mbokk yi mbaa xam ngeen ne du du sayyiduna muhammad moo njëkk a gàddaay mboolem yónnente bu yàlla mos a yónni ci kaw suuf yónnente bu yàlla mos a yónni ci kaw suuf nga nekk ak saw xeet ñu di la bu ndaxataal suñ borom daf lay digal ne fii bu fekkee ne mënul fee rawale sa diine génnal nga dem wuti faneen foo rawale sa diine mbaa xam ngeen ne madinatu munawara gee sayyidina muhammad dem du suñ borom ko joxoñ dedet yonent yalla muhammad bi ko suñ borom digale ne ko gennal nga dem rawale ci sa diine moom moo xool ba madinatu munawara gëna dal ci xelam motax mu dem mu yebal fa ay sahaba ba noppi topp ci seen ginnaw legi nak damay ñew ci ñaaru yonent rek te gattal ci inshallah allah bi yonent yalla zakariya la ci yonente yi waa banu israil lañ bi ci dess mu yonent yalla bu yonent yàlla Zakariya ba muy woo aw xeetam te xeet wa lànk di ko bund xatal guddeeg bëccëg ba mu demee ba xajut ci dëkk ba dafa génn dëkk ba ne day daw ci ndigalal yàlla ne day dem gàddaay a ji diineem kon loolu yonent yàlla Muhammad njëkk ko def yonent yàlla Zakariya ci waa banu Israël la bokk te moo ne moom de dafa gàddaayoon bàyyi dëkk bi mu dëkkoon génn aw xeetam di ko topp ngir bëgg koo rey bi mu dawee ba dugg ci menn man mu bari ay lool mu fekk fa iblis mu taxaw fa tashabbaha lahu sheytaanu fi suurati ra iblis daal di melowoo melow benn sàmm ma nga sol ak tengaa dem ŋàbbu yatam mel ni kuy sàmm ci biir àll bi bi yonent yàlla ak sa akse di xiin xiini di fu mu war a jaar ngir ñu topp ci ginnaaw bañ koo jot iblis ci boppam moo ne ko moo ne ko yaa nabiyallahi Zakariya yooyu yonent yàlla yonent yàlla bi Zakariya xad adrakuk gars yi danañ la dab de boo deful ndànk fad'u llaha ay yaftaha laka hadihi shajara mu ne ko ñaanal yàlla mu xaral la garab gi nga dugg ci ndax yow yonente bi yàlla nga loo ñaan sa borom mu def yonente yàlla Zakariya ne ko wax nga dëgg de parce que boobu xamul ne Iblis ay wax mu ne garab gi xaral garab gi nette feet def ñaari kaal yonente yàlla Zakariya tàbbi ci biir garab ga bi garab gi wëlbati koo bëgg a kebelewu waat ngir mu làqatu ci seen biir fa xaraja iblisu iblisu hëdbër hidaay yi iblis dal di japp ci lafu mbubb yonent yalla Zakariya dal di koy téye bi garab gi kebalo lafu mbubb bi daal di lacc nek ci biti ngir lan ña top ci ginaam bu ñew mu man leena a boole moom na leen mu ci bir garab gi te fekk moom moo ko moo ne ñaanal sa borom mu xaral garab bi nga dug ci bi wa banu Israël ak ci xuri fek iblis mu taxaw ñu nako ra ya yaa ghanam yow sàmm jur bi ay hal raayta rajulan min hahuna min sifatihi kaza wa kaza xanaa gisoo fii benn waay boo xam ne nangam ak nangam la mel mu jaar fi di daw iblis leen aha kay saxaara hasi sajara fan fatahat lahu fa daxal mu ne bi mu ñëwee ba ci garab gi dafa njabar garab gi garab gi xar mu dugg ci biir garab gi bi ñu taxawee ci isité mu ne leen lafu mbuub maa ngi nii ci bitti bu ngeen ko weddee ñu daal di xool gis ne lii kat lafu mbuubu yaxyaa la ñu daal di yónnee ci dëkk si ñu daal daw indi leen si si boo xam ne kii day toll fee jàpp kii jàpp fee ñu tàmbalee ca teeru garab ca kaw di xar ba agsi ci bopp Seydina Zakaria ba ñu xar bopp ba def jëmm ci ñaari gaal bi garab gi daanoo gaal eh, la fay jëme ne la fay jëme ne yonent yàlla Zakaria la fi daa jëm nii la fi jëm nii dama ne kon di wooteel yàlla ci dëkk ñooñ dëkk ba mere la bëgg jël sa bakkan ni nga xamee ne noonu lañ bëgg bëggoon a jële bakkanu Seydina Muhammad suñ borom digale na la génn dëkk ba loolu Seydina Muhammad tàmbaliwu ko yonent yàlla Zakariya mi nga xam ne dañ koo dab ray ko ci yoon wi dama ne ci yonente banu Israël yi la bokk te moo ne moom day ba mu wootee bañ ko naree fitnaal suñ borom dana ko génnal ka ca topp mooy Seydina Moussa Seydina Moussa diggante ak Firawna ba mu demee ba Firawna déclaré na damay bàyyi ba guddi mu wut mbooloo mu bari ñu bett leen mook ay nitam rey leen suñ borom dana ko fasri bi ibaadi yi laylan innakum muttabaun bu guddi jotee àndal ak gaa ñi la gëm nga dem wóor ne ma ne danañ la topp waaye nag wéyal rek Seydina Moussa topp guddi gi bi Firawna ñoom accès yëg ne moo ko mbooloom génn nañ daw dañoo génn topp leen bi démé ba ñaari mbolo yi di ma tara al jam'an ba ñaari mbolo yi di sénété ashabu musa dañ né inna la fi na nga dañ ñu dab sayyidna musa né kalla inna ma'i rabbi sayahdin yahdin yaakaar né ne duñ ñu dab ndax yalla la andal ta ku di ak yalla da fay gindi ci aw yoon da wax ju bax manam ku and ak yalla yalla la jitti

suñ borom ne ko rocce sa yat ba mu rocce yat ba fekk na ak ñooñam ña ngi ca biir ndox ma Isa euh, Musaa rocce aw yatam géej gi delluwaat mel na meloon Firawna ak aw ñooñam lab waan njey naa Musaa waa maaw aj nañ su maa xarax na al axiri loolu leer na kon Seydina Musaa dafa génn cib dëkkam doon daw ngir rawale diinam kon Seydina Muhammad moo xam ne dafa jóge Makka gàddaay dem Madina bu fekkee ne jàpp ngeen ne man ngeen ñu ko reetaan it xam Muhammad jëkk ko def yonent yi fi mos jaar ñëpp ku fi saw xeet sonal suñ borom dafay lay wax ne la génnal nga dem wax ji nag mbokk yi wax ju rëy la waree su ko wax ci bërëb boo xam ne aw jullit ak kere chrétien dañ ko bokk dëkk ba noppi kenn ku ci nekk yéene sa morom jàmm ci li may daaneel mooy genn kàddu goo xam ne am na benn làbb bu ko fi mos a yëkkati ay kàddu la yoo xam ne dafay faral di am te lu mat di moytu la Fi ci rew mi amna ben television télévision de la de la place bu siiw la ci rew ñu dalal fa ben labbe labbe bi ñuy waxtaan boba fokk na ci mendicité bi manam yalwan bi xalé yi di yalwaan ci ci lañ doon waxtaan abbe bi ci bopam mo ne xalé yi dañ leena wara jangal français jangal leen bible bi buñ noppee ñu buñ génnee mëna am liggéey tañ bayyi alcorane ji ñu leen jangal parce que alcorane boko jangé ba noppi am métier si jëmale ci benn plateau télévision la ko waxe benn benn nit rek laa dégg mu tontu ko ci muy imam euh, sëñ Amadou Rafa moom sëñ Fall julli ñi dañoo mel waxu dara te pourtant nag ma wax leen yéen julli ñi yéen ñëpp képp bépp julli bu fi xëyoon ba ci man mii bu ma taxawoon fii ne biibul bi chrétien yi yor amul benn njariñ dañ ko war a bàyyi te jàngale alquran waratuñoo jàngale biibul ci ci réew mi bu may noppi procureur de la république dana ma wax ne ma li nga wax lu tax nga wax yow da nga bëgg yëf fitna mandat dépôt laa jëm parce que dañ naan yow da nga bëgg a yee man mi ab jullit sañu maa tudd jàngu bi sañu maa tudd seenu téere waaye ab ab labbe bam sañ naa toog ci plateau télévision ne dañoo war a bàyyi alxuraan yi ñuy jàngal gone yi te jàngal leen bible bi parce que bu ñu jàngee alxuraan ba noppi du ñu am métier jullit ñi mel ni waxut kenn tontu ko ci est-ce que ñun dañuy jàng alxuraan ngir am métier alxuraan message la boo xam ne yàlla daf ko jox sayyidina Muhammad muy indil ko muy inna hadal alquran yoon la woo xam ne yoonu njub la yoonu texe la suñu borom def ñu ko tàllal ngir ñu jaar ci buñ ci jaaree am jàmmi adduna am jàmmi àlaxira kenn jàngut alquran ngir boo jàngee alquran borom bi am mécc alquran da nga koy jàng ngir mu gindi la teg la ci yoon alquran aw yoon la wa anna sa sirati mustaqimum fattabiuhu wala tattabiu subul fatafarraqa bikum an sabili ñun loolu ñu tax di jàng alquran yii nag lu ma di moytu la ndax gis naa fi benn imam bu dëkk Louga boo xam ne toog na ci plateau wax genn kàddu goo xam ne xaw naa ñagas ci chrétien yi ñun jullit ñun ñëpp dañoo jóg ne kàddu gii de moom rëy na kenn waru ko wàcc say mbokk mbokk yoo xam ne yéen a bokk gëm donte bokk nañ gii ba ci njiitu réew mi ci jamono boobee li wax ni mat na ñaari ci ginnaaw njiitu réew mi fi nekkoon génn na moom ci kàddu boppam ñaawlu kàddu googee imaam wax ne kàddu kenn waru ko yëkkati ci réew mi ba imaam boobee ci boppam dafa mujj génn defaat vidéo ne mi ngi tuub kàddu kooku nga xam ne wax na ko ci waa jàngu bi waaw ñun lu tax waxtu wu nekk kenn ci ñun sëñ te yëkkati kàddu jëmi ko ci ñoom te loolu nag yàlla santuñu ko yàlla santuñu ko waaye nag est-ce que lu tax ñoom toujours ñu saña dal ci Seydina Muhammad wax ko lu leen neex toujours ñu saña dal ci alquran wax ko lu leen neex ci li nga xam ne daal ci lañuy ñuy mooy mbokki yi bi bii na ko fi gouvernement bi taxaw ba jële ko fi ak nu mu ko fi mën a jële kenn ko ci nekk li nga gëm dañu ko war a respecté jigéenu jullit bi yàllaa ko digal mu sàmm aw yaramam amul keneen koo xam ne sañ nga koo digal mu muri aw mu muri aw yaramam parce que ba muriwul say saw yaram doo dugg ci sama biir école bi loola na ci gouvernement bi taxaw na ci jóg damaa jàpp ne xew-xew bi occasion la ci ñu woote waxtaan fexe ba saafara ko dindi ko fi ginnaaw yow mi takk croix kenn sañu laa tere croix bi jigéenu jullit bi muuru kenn waru ko sañ sañ tere muraayam ak école bu mu bëgg a jàngee nag ak fu mu école ba fu mu mën a nekk li fii ak mi ngi ci réew mi rek nga xam ne constitution Sénégal moo ëpp doole li ñuy tuddee ay règlement intérieur école te constitution bi moom li mu nangu mooy kenn ku ci nekk sa gëm-gëm sañ nga ko yóbbee place bu la neex biir école ba fu la neex mën nga ko fayu kon jullit jigéen ñi jullit ñi sañ nañoo voilé wu ba noppi dem ci biir école yi jàng loolu moom dañuy lancé gouvernement bi xamal leen ne leen nañ ci woote waxtaan te nañ ci taxaw bala école yi ubbi loolu ñu dindi ko fi amul kenn koo xam ne am nga muuru pënu sañe tare jullit ñi nga leen bu muuru yow rawatina nga doon koo xam ne sax far bokkoon ñoom diine ba noppi dinañ tere ay muulaay ñu di ko nangu loolu moom wax dëgg yàlla ful la fekkiwu ko fay fekkiwu ko yaxfirullahu li wa lakum wa lisaa'iril muslimiin